doxal ci biir Konaté bi ñu ngi koy li nga xamante ni aussi tamit mooy délégation bu ñëwee waa Tëngéej que Adja Rémy Dia envoyé ko ñoom ñu ngi nii toog ànd ak seen jigéen muy bindu daal nga xamante ne talaatay leer moom mii ca ko muy bindu nii toog ñu ànd ak ñoom Seydou ñoom Madiagne ànd ak li nga xam ne ñoom mooy Fatou jigéen ñi ñëw sonn nañ ci président Macky Sall daw nañu gu daw nañu daw nañu guddi daw nañu bëccëg man mii taxaw di wax ak yéen ci Macky Sall la tey fu ne dem naa fa ak moom ànd maak moom Bambey ànd na ma moom Thiénaba ba na ma ak moom Thiès kër seen bu njëgeen fu mu Macky teg tànkam teg naa fa sama tànk te gisaguñu dara ñu ñaan Macky Sall ci gàttal rek man li may wax mooy ba mu mettee ñuy monter comité yi dama ne la ñun ñoo monter comité yi keroog may monter comité man dem ba Diallo mii mooy mooy mooy mooy ah, coordonné ak Mariama saar naan kaa jaaral nii jaaral nii bu mu egsi sama kër monteel ma sama comité maag ab sa si mii toog ñu monter suñu comité te boobu ba léegi comité boobu dafa tëdd di nelaw mu ngi suñu armoire ñu tëral amuñu si pombiteer amuñ ci soble amuñ ci dara amuñ ci sax foo xam ne fii suñuy doom war nañ faa mën a nekk di fa suturlu mu xam ne metti na torop ñuy ñaan nag Macky sàll mu gees suñu ñun jigéenu euh, departement bi nañu geesu xam na suñu coono moo ñu gën a xam bu ñu gisee dañ jaar suñu tur jabaram Marème fay Sall maa ngi koy gërëm ndaxte kat lu ma man moom la man ndax su ma feebaree moom moomee fekk hôpital faj ma kon nag Marème fay Sall grâce à Marème Faye Sall di wax ne nag ah li coono bi rek ñun ñëpp suñu coono la ñu ñoo ko bokk li ñuy jo fii tey ñun ñëpp suñu suñu coono la waaw kon nag ma gàttal wax ji rek wax ne nag soxna Mbacké Pène kontaan naa yàlla na yàlla dooli weeru koor wii yàlla na yàlla def li ñuy mébét mu sotti te yàqul ci affaire dara te it ñàkku rab dañu am euh, niveau bu ñuy doxalee mën de je suis reconnaissant si àndandoo ma ànd ak ñàkku rab Aram Mbaye mu jiite leen ma ànd ak Cheikh Ndaw mu jiite xale yi ma ànd ak ki ne ki ne ki ne jaw étudiante mu jiite la jeunesse féminine ma ñëwaat ma ne man day maa ngi APR te defe naa ni dama di militant responsable ma am fi responsable boo xam ne mooy Mansour Mbeng Mansour day buñ ko joxoon te aw ma sax am naa man noonu laay doxale parce que nit boo amee confiance da ko jëlal suñ ko joxee jox nañ la kon Mansour man day si cogère ma bokk safula du moins CCR bi en tant que relation extérieure maa ko yor masuma see yàq dara mais dama gis ni ngay doxale parce que maa la mag jàng naa comme yow ñëpp jàng nañu wante nag ku lay ndax danga nga koy xam yow da nga naxul kenn kon ñu ngi lay sant di la gërëm ñu lay sant di la gërëm Demba Diallo mii man su ma ñëwoon tey gis ma fi Demba Diallo euh, Malick Ndiaye du ma ne du ma adhéré de damay adhéré carrément parce que xale yi taxaw di xeex jàkkaarloo palandiir wax li mu wax mais ay mag dañu ànd xale ndax ñu ñemee kon yéenay sunu lantinoor maa ngi lay sant Demba xam naa la xam naa Malick Ndiaye man nag El kase man lu may def sama alal du ma xaar parti parti ma su defal dara damay engagé wu jusqu'au bout ba may gagné ak su may perte mais tey fii la gagnaay bi am. on était parce que on avait des jeunes Rufisquois compétents dem laaj ñu ñu moom tey aujourd'hui Djiby Ciss est chargé ci félicité ab sa si ñii nga xool ñoom ami sec keroog mangi wo woo Aziz di ko ko wax ma ne ko boo rombee absence nga yor oto romb ko muy dox tank sa yaram du daw mune ma axankay ah, mu ko ëppoo ko mérite mais dum ko ëpp chance rek mami gay ma nga nële mo ñeuk jaay carte APR ci tengue parce que nak carte yi yi dugg département de Rufisque l'ensemble des cartes yépp man la ko Sitor ñu jox ku am carte ma ko ko jox Mami Gueye ma nga ne moo njëkk a qui euh, Marie Louise dafa diisoon mais dama ko muy ñu congrès bi qui ma APR parce que man a installé dans le département de Rufisque Le ma wax parce lu ma fekkee la lu et j'ai toujours mené des combats et combats yo nek combats yo yom mais à la longue combat boobu mooy gagné parce que engagement conviction détermination rek men ci ànd moo tax yàlla di ci defal ndam Assane Mansour di buñ ko xeeb billahi lazim yalla da ci def ndam bu fekkee président bëgg na gagné li rek mo meuna taxaw na président législatif bi koy gagné. Nous gagnons, gagné. Si nous avons képp ku jóg na président il ne gagnera pas les élections législatives 2014 le fichier électoral était à 196 000 électeurs Nous avons ñun parti bi Yokuna, parti 30 002 voix journaliste duñ ma pas ma vous êtes des cadres 196 000 électeurs inscrits. coalition Benno bokayakar Nous sommes partis de nous avons 30 002 voix. Et c'est parce que il y a 160 000 électeurs qui n'ont pas voté pour Benno. Nous sommes venus. Nous avons venus. Oui, nous êtes venus. Mais nous

tay ñu bari jéemoon nañ ne lii du am dëgg rek mooy mooy dëgg te dëgg mooy mucc ñu bari xeex nañ ko loolu moo tax ñu dund Sénégal ñu bari ne lii du am ñu bari ne du ñu indi ñetti nit ma ne leen bu dee ñetti nit journaliste yi dinañu jël li ñëw parce que du nit ñi mais li ñuy wax am solo te président dina ko dégg et moi je dis et j'appelle le président de la république lii su ko rëccee du gagné élection yi fii ci euh, département de Podor du ko gagné ndax nag àq dafa am ci politique on dit éthique morale déontologie mais àq moo gën a bon rey sa bopp gaañ sa bopp kii jël naa ko ko mu faju sa ak est tey bi yow ñeewoo leen la gën marie y a failli donner sa vie ak ñeneen tey ndaw jël deuxième ñu naan ki jël quatrième moom moo lay jiite mais nah, iya, yëfi ñu fi kan toppale la iya. ñoy lay rawante bi teer ki jël bee ki jël dess nga ne kati ñoo ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di am mbégte mu rëy dalal leen fii ci barñi pour waxtaanee suñu parti waxtaanee suñu doom damay faral di wax ne alliance pour la république bu doon doom la ñi ko ëmb wasin ko ñoo ngi nii toog Nous ñu am ci bu nous buñ ñu ko ko buñ ñu ko joxul Nous ñu ko ndax ko ñu un 23 janvier boo xamante bi résultat élection locale yi wàccee guddi googu ku tëdd nelawuloo ndax ñun nag président Macky Sall xam ci suñu xol ci politique kon dal bu ko dans le département ñu rencontre sincère un dialogue franc et permanent entre tous les acteurs politiques du département su fait nammal nañu président Macky Sall li dal 23 janvier mu bañ 31 juillet mais démarche démarches ñu gis c'est des démarches fractionnistes à la limite de a beddi ñi nga xamante ne nii bi àll bi ne xuus kenn ñemew fi ñoo le président Macky Sall du ay teggin du nous avons nan le parti la coalition dans le département Nous sommes 23 janvier bala midi daan nañu leen ay commune élection moyen yi moyen yu doy midi adversaire dans ba Nous kaw nous ñu pour 31 juillet Le 23 janvier ba mu passé réunion d'évaluation amul kenn ku ci oote réunion pour jàngat defet bi nga xamante ne am nañ ko suñu ay commune ñu jël une commune comme Sendou balaa maa ñëw ci Bargny Benno Bokk Yaakaar moo fa jël ndaare ñu ki jëloon ndaare moom mooy jiite waat coordination pour ñu dem élection législative ñun lan la namal président Macky Sall bu ñu deselee it am na lu mu ñu ñamal te duñu bëgg mu dolli ñu kon dañu bëgg mu gagné li ñu wax nag mooy problème département de ma demb mënu koo régler ma sàmb mënu koo régler

dañu leen dóor ba paan seen ay kaw kon nañu fonkante nañu nawlante ñun amuñu la ëpp alliance pour la république boo ñu séenee ñuy dem alliance pour la république la ñuy xeeñ boo ñu séenee ñuy dem jëmmi président Macky Sall moom ngay gis ci suñu kanam mais bu dara des lu dul suñu ngor lu dul suñu honneur ñu bàyyi la ak lépp des ak suñu boroom foofu la ñu toll donc le président de la république président de l'alliance pour la république et de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy wax ne na bàyyi xel le département de Rufisque

en tout cas nous, à Bargny tonton Mansour nous avons suñu responsabilité le 1 le avril passé, passé avons eu une réunion assemblée générale on a appelé toutes les femmes de tous les quartiers de Bargny jël notre bâton de pèlerin nous une tournée ñun tous les militants sympathisants de l'Alliance pour la République ndax bo duggee ci terrain bi out ay parrainage né xamné nit ñi bëgg nañu président de la république mais produit yi ñu leen présenter ñom ñoy seen interlocuteur loolu lañu ñu accepté wul boobu la bëggul le produit est fade nañu ko soppi nañu soppi doxalin wax ak nit ñi respecté leen jox leen seen ay cër ñu ànd le 31 juillet battre campagne gagner largement pour conforter la majorité au sein de la de l'Assemblée nationale ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di cadre républicain bi nekk au niveau du département de Rufisque bay parti bi di parti batay amul kenn ku ko mas a fal moom mi ak ñom Diouf Sarr Diouf Sarr ministre de la santé ak ñi tok ñoo bokk ben réseau des cadres mais ñepp lañu ñu nommé donc cela veut dire que ñun amuñu des nominations ah li Abdou Aziz Konaté il faut ñu indi ko parce que il fait partie parmi des cadres Isma mi togon fi il fait partie parmi les cadres ñun bu ay directeurs. ñi nga xamante ne mën nañu yore des direction am nañ ko fi dans le département lu bëri nañ fi mën nañu am ñi nga xamante ne mën nañu yore yeneen nomination am nañ ko fi ña mënul yore ay nomination président xool nan la mën a def ñoom pour nit ñi mën cee gis seen bopp loolu rek ñu téye mais président man damay ne ñii nga xamante ne ñoo nekk ci département bi defuñu dara man duma leen indexé man président laay indexé mooy yàq parti je le dis directement président de notre parti je ne dis pas le président de la république du Sénégal le président de notre parti APR mon moi yak parti depuis 2014 gor nek fi jaxase asamaan ak souf liggéey def lu ne pour gagner... le les 26 de ko jox en 2014 mu la coordination bi jox ko les maires maires yi nga xamante ne dañ leen jëli indi mais nous, la ñëwut buñ ko fi amee bu jeexee dañuy dem ana lan moo tax coordination bi bañ ko joxee en 2014 ñeneen ñu dul ñun boobu la parti bi commencé yàqu ba tey ba ba ba su guddi gi tey nii donc loolu mooy li nga xamante ne mooy idée bi idée bi mooy ba ñu toogee waxtaan sunu biir ne nu nañ jëlaat suñu bâton pèlerin waxtaan ak suñu bopp tout les authentiques de la l'APR du département de Rufisque xool deftu nan la ñuy président recevoir xeexuñu kenn ŋañuñu kenn tendance suñu ak kenn dafa am la nga xamante ne dafa yàqu te la yàqu foog ñu defaraat ko kenn rek moo ko mën a defaraat mooy ñun ñii amul keneen ku ko fiy defaraat tey beneen parti ñi ñi fi nekk tey bu ñu gi demee ba gisatuñ lu ñu xam dañuy toxu dem ci yeneen parti ñun rek ñoo mënul transhumé ñun rek ñoo mënul dem feneen donc cela veut dire président ngal na xoolaat parti am nga ngala na déglu ay responsable am de base ñi nga xamante ne démb ak démb barki démb ba kenn bëggul ñoom ñoo bëggoon porté ko ba yegg si fi ñu yegg na leen déglu am nu mu def ñoom xool département de Rufisque xool nu mu def parce que li ñu wax sànq c'est vrai pôle urbain bu toll nii département de Tëngéej billaahi wallaahi wa taalaahi bu ñu leen ne département de Tëngéej car 60 pour cent liggéeykat fi nekk fi yëpp département de Rufisque amul kenn ku ci bopp en plus jam ñaajo bi nga xamante ne moo ñu gën a jege amul kenn ku ci tey on a des cadres on a des personnes qu'il le faut moo tax lii am dañ leen di ñaan ngalla nañu suudewu ànd ragaluñu kenn nag faayit rek lañu man dañu mën a faayit ba géej gi fer xeex rek lañu man ragaluñu tiituñu dawuñu te fi ñu tegu fi la ñu tegu te di ngeen gis ñoom ñëpp dinañ ñëw fekk si ñu président nag nañ jàkkaarloo ak moom nag wax ak moom jot na deux ans moo ñu jot dese dañoo sonn dañoo sonn tey bàyyi rek mooy suñu xel man ibu baax Ibou ko Sébikotane tey bàyyi rek bàyyi rek laay gis gisuma dara du dul woon gannaaw wala dem feneen waaye yàlla cadre bii moo mu repêché waat te Malick Ndiaye mi toog lañ toog di ci waxtaan ak kii. ñu toog ci di ci waxtaan dem ba jàll ñoo ñu toog di ci waxtaan lii moo ñu fexe indiwaat dundalaat ñu ñu war xoolaat ndax ñun dinañ am yeneen chance nañ dimbali la président bëgg nañu le président bañuñu liggéeyam bañuñu ko bëgg nañ ko xam nañ ne mu ngi liggéey Sénégal ku ko jàppale mu continuer liggéey Sénégal. je me rappelle ba may ñëw booba Omar Gueye président communauté rurale la woon sàngalkam ma am kayit gu ma fa doon réglé. bay waxtaan ak ñoom naan leen ñëw leen si suñu dekkal ngor gi ñu naan ñu daayira ngeen yoon tey ji suñu daayira boobu si la ñoom ñëpp teddee bàyyi ñi nga xam ne ñoo yoroon daayira bi nekk ci biti te normalul encore une fois dama leen di remercier ñu ngi commencer recevoir mooy communes yi damay jàpp ñi ñuy teg ci département yi naan c'est la le coordonnateur man gëwuma ko président tànnul kenn lobby la ci au niveau du palais ku nekk seet ki la neex jën teg ko ci département bi naan président moo ko fi teg président tegul kenn fenn ñun ñëpp ay authentique lañ comme ni ngeen ko waxee depuis dekkal ngor ñu ngi ci commissaire politique la Bargny gi monté naa fi ay comité ba tàyyi en 2008 2009 kon donc li may wax lu ñu xam la honorable vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm komba bii nga jàpp dama ne la fi nga teg sa tànk foofu la ñun de man dama am ñaari cër parce que Tëngéej gii laa juddoo fii laa màggee dem dëkk Dakar nekk fa di militer dakaar mais dama am tànk Tëngéej bu ma déggee département de Rufisque tey jii les authentiques ñu ngi toog war a mën a waxtaan li may def mooy bàyyi lépp lu may def daw si ñëw parce que dama fee am cër encore une fois comme ni ngeen ko waxee état du fees séentu asamaan jarte buuxante comme li ma leen waxoon rek bi ñu recevoir il y a une semaine au palais dama ne leen il est temps ngeen respecter ñii nga xam ne ñoo nekk ci naaj bi pour yéen boo leen ko defoon di ngeen am lu leen bett torop doo leen génn fekk suñu ci naaj bi mais da ngeen di génn ñu dugal leen ci ay ruq yu lëndëm yoo xam ne dool kenn du leen fa fekk kon donc il est ngeen wax ak nit ñi man nag sama wax du gudd dama leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne fii ngeen taxaw foofu la man bu demee département de Dakar je crois que xam naa authentique yépp li ngeen def dinañ ko def département de Dakar te dina continuer di law ci yeneen département yi parce que président boo buggee sauver APR gi nga xam ne ñoo ko bokk dina ut ay solution ci lii nga xam ne ñi ñi ñeen ci nekk di reyante boobu ba léegi nit ki amut lu dul sàkk lii nga xamante ne moom la ñit ñi di réclamer celeur droit parce que dañ koo xeex bi fi kenn nekkulee ñoom ñoo fi nekkoon di xeex tey jii du ñu xeex ba mu sotti ay nit jóge ci àll bi ëpp ñu leen mérite ëpp ñu leen ñàng ëpp ñu leen dara ñu jël leen teg leen ci kaw ñi nga xamante ne tey jii bu ñooñu seen pexe sotti woon kon mënoon na am tey moom du toog vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm bañ a guddal vraiment kontaan lool lool lool ci rencontre bi moo tax bi ma ko yëgee daw si ñëw vraiment ne dinaa fi sànni donte ñaari kàddu la di leen xamal ne lii combat bii nii dinañ dem ba mu nekk au niveau national te président bés bu buggee sauver APR dina wax ak waa authentique ça moom c'est clair jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. parce que ñu ngi président amoon en 2012 les authentiques toog fii ñoom ñoo ko génne responsable si département la koy def donc tey wareef la bu ñu gisee département bi sori. dañu doyoo ay kumbal amuñu fu ñu jëm te gën ñu yeey président Macky Sall mu taxaw wëggal suñu bopp te fas yéene ànd ak ànd naaw rek lépp loo xamante ne nii parti bi da ngay joxe au niveau départemental je pense bien que ne ci biir toog ñëpp di seen bopp à partir d'aujourd'hui jël nañ ay engagement ferme dans le parti te amul dara lu ci daw amul dara lu ci ragal parce que képp suñu responsable bi ñuy def engagement bi ñëw si parti bi kenn teewul si loxo yóbbu ñu ñëw xool nekk le président dafa am vision pour defar Sénégal pour ñu dem ànd ak moom donc ànd ak moom boobu rek moom la ñuy dëggal fii moom la ñuy jëmbal incha allah le législative ñu jox le président Macky Sall la belle victoire au soir donc tey loolu mooy cadre unitaire du département de Rufisque authentique bi nag ñi nga xamul rek gis mais diisoo si ñun parce que ñun ñoo fekkee démb fekk tey bu fekkee démb nag fekk tey lépp looy def si si keppaaram mu diisi moom donc à part d'aujourd'hui ñun cadre unitaire du département de Rufisque sommes la force politique du département nga xaaral ko kenn dégloo ko kenn ñun ñooy doxal suñu bopp ñooy demal suñu bopp ñooy dox si lépp incha allah rabi day doon def ko ñu ngi moo si koor lañ nekk ñu ngi jégalu si euh, lay nuyu bu baax di nuyu aussi euh, monsieur mon frère. donc di am mbégte lool aussi di ñëw teewal Adja ci am donc Adja Yoni ku xam xam ni yéen yéen a bokk combat bi parce que li leen dal moo ko dal depuis 2012 moom mi ngi ci parti bi amu ci benn reconnaissance très sincèrement donc muy la seule candidate ci élection yi ñuy jógee li ko waral mooy lu tax mu def ko c'est juste pour montrer à la population que ni jigéen ñi war nañ mën a

Donc, en, ce qui concerne Yonou Cham, ne vous en faites même pas. Il est en phase avec Yen. Lep Lungendep Mingichibir, Lungeni Dok, Lungeni Wak Mingichibir. Donc, l'homme, je tenais vraiment à vous informer. Si l'homme a maintenu l'homme, te di leen ñaax ni l'en. Lui, c'est un combat noble donc bu l'en ko parce que tey jii euh, Macky Sall bu ja 26 donc yéen da ngeen ci participer donc c'est très normal comme le professeur waxee le président il sait réparer les erreurs mais vous que vous êtes ko donc on a. jaral lu ne bu jëlee def marche ñu def marche bu faire def grève de la faim aussi ñu def grève de la faim bu jëree dem télévision faire des points de presse def animation nous def ko donc c'est un combat un combat mon tous les moyens sont bons pour amener li donc du duma du duma d'année nuyu bon euh, délégation nous andal. man ànd ceeg euh, Tendou Ndiaye ànd ceeg Mati Dieng ak Bintu Diagne donc vraiment je vous remercie monsieur Diagne ñi ngi lay encourager bu baax ci combat. allahu taala alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu di leen balu àq ci wéru koor gi di leen bal àq damay yëkkati ay kàddu rek yo xam ne mënul ñàkk tax cause bi ñi ñew di ko défendre fi dafa doon cause bu noble. muy cause de les authentiques cadre unitaire des authentiques ku ko dégg xam ne ba APR di doonul dara ñii ñoo fi nekkoon ma àndaax sama xarit Abdou Aziz Konaté àndaax Djibril Ciss Babacar Diop ak sama jigéen ñi ñoom Joor ñoom euh, Soxna Mbacke Pen ñu yàgg nekk ci parti bi di xeex ci biir Tëngéej nag keroog bi ñuy wax li ñuy wax soi-disant coordination ootee man convoqué nañ ma convoqué nañu Abdou Aziz Konaté dem nañu nag mais ba ñu demee dañu demoon pour wax leen noo quatre vérités te defe naa ku ci am éco war nga dégg ne wax nañoo ñoom man de lenn rek moo ma gënoon a intéressé ci ma dem mooy bi ma demee. xamal naa ne leen yow Omar Gueye yow Souleymane Ndoye ak ñeneen ñi ngeen àndal ñëpp ba ci salaam Gueye lii departement bi yàgg di ut muy audience bu bu ngeen xool ne arrangé wu leen da ngeen mas a di capotel audience bu gaa yi mas a ut ngeen yàq ko bi mu leen arrangé nag pour ngeen am audience arrangé wu ngeen ba dem président recevoir leen mais la ngeen fa wax la ngeen fa wax. yéen la engagé ñu ne si kaw loolu ñu tiit ba ne président pare na pour jël département bi audience après 4 avril ma ne leen ma ne Omar yow respect aux militants de l'APR zéro responsable APR respect zéro li ko waral mooy mooy li Abdou Aziz Konaté boobu xuloo nax moom ba dem ma ne ko Abdou Aziz Konaté li muy kaas dëgg la troisième fois maa ngi fekke réunion boo oote dangay wax ba pare ne da ngay dem doo toog déglu nit ñi loolu foo ko teg muy benn ñaareel ba mooy yow yaa ngi wax ne yow yaay coordonnateur APR Tëngéej mais ban promotion jeune wala promotion cadre wala promotion femme nga mas a def si biir département bi bu amee ngeen wax ma bu amul ngeen wax ma kenn waxul ne am na kon defu fi dara. yàlla def ko sëñ amul woon APR ma di ko gërëm Mansour Mbengue parce que bi mu ñëwee garage su bari la mu fekk mu ne ma dama bëgg a monter APR ma ne ko je suis yàlla def ko mun ne ma trois heures jël sama sama kër ma taal sama oto jël ko këram yóbbu ko sama kër ñu waxtaan si wàllu APR. kenn kenn amul fit dugal seenu APR man ndaw Samba kesse ma amon amul won ñeneen ñi ay ablay wad la ñeneen ñi ay Tanor lañu yalla def ko na ma jël sama volontaire monté officier Macky Sall bima xëy lepp fekk ci mbedd mi ma sante yalla yalla def ko nak ki fi nekkon muy sama kilifa muy Alaaji Souleyman Doy mu woma ci si ma tok mu na ma bur kenn du xëcc ko mom nu ngi sa ginnaaw man sant yalla bu baax di gërëm Mansour mbeng parce que buma ma demee bay monte comité grâce à Mansour mbeng parce que Sendou amono appel ah kenn amulul ma appel la même sama mbokk yi ma nekkandoon sax ando won ak man mais ma sant yalla taxaw di gërëm Maretu jaw parce que ku ak sa bamel parce que elle a fait un combat avec moi mais j'ai j'ai un peu mal ak ma mom si élection yi passé parce que bimu waxé dama na ko nit du yàkkamti parce que man xam naa ne maire bi fa nekk tey il pose pas la poids parce que da doon àggali mandat bu Matar Mbengue ma ne ko nag nan toog ma woote ñu ne nan oote bennoo bi ma oo bennoo bi yépp nu wax na ne nañ bokk ndey bokk bàyyi pour liggéey bu yàlla defee nag ñoom mu xam ne ne moom ne na day dem candidat man ma xam ne ne kii mënul gëj a ma man dama ak sama liste yàlla def ko ma jël deuxième am 5 conseils lolu sante yalla bu baakha baax la parti bi nak man duma fi gan parce que yag na fi Demba Diallo mi ñew na sendu yor ay moyen pour def département bi yalla def ko tamit ma diga ko bu baakha baax baax parce que Demba engagement am ci parti bi authentique yépp xam nañ ko authentique xam nañ parce que ku nekk xam na sa kër ngor nak bu yalla defee ba ñu toog fii nan wanti deug ta yalla rek tax parti bi nak ñun ñepp Macky Sall lañu bëgg fi ku fi nek rek Macky Sall rek lay noor ngon bu nu yalla defee bu nu tok nañ xol di ci bëtt bo la waat ben jappalé Macky Sall mu jëm kanam bi ci top moy ñun xolante ci ñuy bëtt xam na né li passé passé na parce que li ñu ñàkkaloo ci élection yi ñun ñepp xam nañ ko té loolu duñ ci ko waat parce que bu ñu teyoon bokkoon ndey bokk a bàyyi ngoon lii duñu ko ñak mais nak nañ fagaru waat Macky Sall ne takal len liggéey yi ñu jéemaat xool na lañu def parti bi pour parti bi avancer man day sendu lay wax kenn kenn kenn duma jël ci parti bi ne yaang ngi may yóbbu feneen wala man na maire bi moy coordinateur man duma ko nangu tay duma ko nangu ëlëk mënuma jël deuxième position maire bi jël ndare mu bëgg ma jité loolu duma ko nangu loolu duma ko nangu duma ko nangu tay duma ko nangu ëlëk liggéey na fa di militant bo xamantene militant de la première heure man na damay am contentement lol franchement gis mbolo mi fi nga xol bo gisee ñi fi nek rek nga xamné ne ay ñu am conviction ñoo fi ne légui na pour gàttal danaka mes prédécesseurs orateurs yeb wax nañu ko man ben complément kese lay wax ci dans ci li nga xamantene mo waral le cadre unitaire le cadre unitaire euh, des authentiques de de l'APR départementale dafa am lu ko waral li ko waral lenn la manam du lo xamantene ne institution moo ko wala du lo xamantene dafa nek ben euh une coupole sous un autre sous un quelconque responsable wala dafa nek un conglomérat de frustré du ci lenn cadre unité benne dynamique bo xamantene la ñu fi nekkoon Nek nekkaloon Macky Sall guddel ko bëccëgal ko ba 26 yi mu amone ba nek deuxième tour ba gagner ba nek président de la république ñooñu ñom ñoo formé cadre unitaire.

moy ñi nga xamantene dañ leen yaatal gatam lu leen dalal leen parce que ñun dañoo yaatu ñun sommes vraiment on les a accueillis à bras ouverts parce que politique dañu wax ne addition la leen ñu ak ñoom Nous def li muy def ñu am ay nombre mais dafa que né ñoom principal adversaire moy authentique yi fépp dem c'est pareil

ñun ñi wax ak ñoom ñu ñi wax ak moom ak njabootam la ñu ko lenn lu dul reconnaissance premièrement bi mooy président recevoir ñu accordé benn audience ñu wax ko li nga xamante ne moom mooy les moo di département de Rufisque beneen bi aussi ñu xamal que ne que ñun dem ba ba léegi maanaam depuis 2010 2011 ba léegi ñu ngi ànd ak moom di ko liggéeyal mais amuñu reconnaissance si moom li ñu koy laay moom mu joxuñu reconnaissance loolu nak buñ ko ko exposer amuñu ci satisfaction ngel la way na ku nekk maanaam jël ses responsabilités en tout cas ñu mëna à chaque li ma concerné moom bu boobaa incha allah dinaa jël seen responsabilités parce que tamit mënuñu fi nek pendant plus de 12 ans di ànd ak Macky Sall té mënuñu ci gis sin bop franchement loolu da la moom si li wax di leen xamal ni di len jajeufal ci seen ñëw ñeen ñëpp wasalaam. illaa billahi alil azim nuyoo bi nak ma koy jëkkee man dama naa sama présidente mooy Mansour Mbengue l'infatigable loolu lay wax dama yaakaar ne 12 ans fu ko nekk ci parti moom rek laa mësul gis mu nekk ci departement bi te épaulé kenn ku si ne am nga koo àndal di ko jàppale ba mu des moom taxaw fi mu taxaw gëm li mu gëm moom lébu la de ku ko door mu fayu maam ama ndaw euh, dojoon na ñu ngi nekk si commune bi Bargny dégg nga euh, APR bi mu foloo Bargny authentique yi la jëkk a dëggaat dara day xew sax authentique yi duñ ko yëg dañuy taxaw si mbedd mi gis ñu laa Macky Sall xew la tey 12 ans nu nekk si si terrain bi Macky Sall keroog ba mu demee tournée ba muy ñëw Pape Diouf Demba Diallo Malick mu ngi nii chaque jour mu ne ma Binta damay boole si groupe WhatsApp bi ma ne ko bokk may WhatsApp bàyyi na ma Macky Sall ndax tey bañ taxawee Macky Sall di ko jàppale tey mënuñu see am dara ñii ànd ak moom mën ñu see am dara tey ka fi falu authentique yi laa jëkk a xee si commune yëpp mais yàlla àtte na ñëpp ndax maire ba nekk si commune am authentique yee la daaneel loolu moo am Omar Gueye nag na génne sax sunu parti ndax moom mënul bàyyiwul la yàqu moom la la baax mu ne Awa Gueye jox rakam non nak nag yag ci parti bi nak la xeexal parti bi man so jere jeuf man dama yaakaaroon na sax ba mu oowee dax naa parti bi way daa continuer ci parti bi tay pon Macky Sall la nuy parrainage duñ ko jox ben ministre dañ kaa dajale en jox ko président de la république ci bopam président da mën a recevoir wa nun ba nu le recevoir wa nun nu bàyyi ka parce que tamit. Mansour mbeng responsable politique à barni

Nous avons gis que suñu niveau parti Nous avons def ay réunion yu finalement ñu def une assemblée générale pour régler suñu problème yooyu problème yi nag ñu régler département de Rufisque les 11 communes yi ont ñu département bi ñu ngi kuréel gi ñëwul pour contre kenn ñëwul aussi pour génn ci APR ñu ngi ci APR ba nëgër ni mais nag kuréel gi booloo nañu xamal ne bootu ñu si gannaaw kenn si gannaaw Macky Sall dong la ñu bootu parce que bi ñu xoolee at yi suñu président de la république et secrétaire général Macky Sall yor réew mi ñimu mu yaakaaroon ci département bi gis nañu ne dañu beddi ñi xam ne en 2012 ñuy Macky 2012 dañu doon gagné seeni élection ba tax na si la né xool ne ah élection yi ñu jëm day muy législative yi bu ñu banquee suñu loxo du baax ñu envoyé lettre le président Macky Sall pour mu recevoir ñu pour ñu wax que li xew ci département bi parce que yaakaar nañ ne euh, du ko wax li xew da am luñ koy nëbb te loolu ñu koy nëbb mooy tax ñuy perte élection yi lettre boobu nag fekk na ay lettre lettre lettre département de Rufisque nag le président de la république mosu leen recevoir ñu ñaawlu ko parce que yaakaar nañ ko ginnaaw yàlla ak yonante ba euh, naw nañu ab liggéeyam ci biir Sénégal mais liggéey boo gis nit daf ci bëgg jaajëf ñu gis ne bu ñu koy càmbat wax nañ ko léegi ci tubaab 2012 dañu gañe commune Rufisque yépp yëpp ñu ci benn bi ñu demee ay premier tour deuxième tour dañu gañe élection yépp boo jëlee référendum 2016 dañ ko gagné ñu jëw législative dañ ko gagné présidentielle dañ ko gagné avec un score bo xamné département de Rufisque 54,80%. suñu score bobu motax ñun pertu ñu Dakarou té bo xolé suñu électorat au niveau national à part Mbacké département de Rufisque mo ci ëpp électeur té tamit président il faut mu am lu mu bàyyi xel dafa am ay villages yo xamné ak dëkk yo xamné ci Sénégal

ñu parti bi nak ah mu ngi commencé depuis 2014 au niveau du département de Rufisque C'est suñu gis-gis puisque en 2014 le président daf ñu jox ay directives ne dem ak Benno Bokk les responsables et militants disciplinés dem ak Benno Bokk ont am ñu dem ci yeneen liste gagner ay mairies. malheureusement je dis bien au niveau du département am ñu fi nekk du ma tudd seen tour créer association des maires te maires yooyu ñi ci ëpp kenn du ci APR authentique ñuy def lu leen ne ba pare nag li gën a garaaw ñu beddi apéris authentique yi salle bi ma toog di wax ak yéen sept ans mosu ma mën a am salle bi ñeneen ñoo nekk yore maire bi tey lay doon am salle bi donc lu ñu bëgg du dara président nañu gestu wax ak ñun et éventuellement bu fekkee ne dafay recevoir le département de Rufisque bu mu ñu boot ci kenn ñun ñi suñu kuréel dañu bëgg ñu jox ñu suñu quota ñu ànd ak ñi muy recevoir puisque ñooñu muy recevoir bu fekkee ne dafa leen wax ne ñoom kese lay recevoir duñ ñu ci boole te kat gars yi nag monsieur le président dama lay yëgal na gars yi mer nañu de merew ñu la nag mais ñi nekk ci département bi la ñu mere que nous demander c'est quoi on le demande solennellement monsieur le président Nous tout le département est représenté donc ce que nous demandons c'est que recevoir Inch'Allah, nous di recevoir ah, le cadre unitaire des authentiques du département de représenté par toutes les communes du département

effectivement c'est des responsables pendant dix ans mais jëfewuñu jikku responsable vis-à-vis de nous donc ma leen di balu àq di wax né lolu moy suñu bébét bu kenn rek duñu sosal ci yow di wax né ñun on est des rebelles non nous sommes toujours avec toi nous sommes contents de des travaux que vous avez effectués au Sénégal gis nañu liñ fi def président yi la jiitu yépp kenn defuko fi gisuñu bokku ko fi def te continuer réalisation yi donc, Monsieur le Président, il est très facile de gagner les législatives de juillet 2022, mais à condition, au niveau du département de Rufus, nous Je m'appelle Isma Diagne. Je suis le secrétaire administratif de la coordination des cadres de l'APR du département de Rufisque. Je suis membre fondateur de l'APR. J'ai monté un comité en 2009, le comité de l'APR. Donc voici la déclaration finale euh, de la, résolution de, notre cadre unitaire. Donc le cadre unitaire des authentiques de paire du département de Rufisque. Le cadre unitaire des authentiques de l'APER et ACAR de Rufisque est composé d'hommes et de femmes qui ont été les premiers dans le département de Rufisque à croire et à porter le projet du président Macky Sall. Le chemin a été long et pénible, mais nous avions notre détermination en bandolière. Ce cadre unitaire n'est ni une scission, ni une sensibilité à la solde d'un quelconque leader, mais plutôt une marque d'engagement de responsables républicains, authentiques, conscients qu'ils demeurent les seuls capables de réussir le défi de l'unité de la paire Yakar. Aujourd'hui, après un diagnostic des raisons de la débâcle aux élections locales, il est plus qu'urgent de retrouver toutes ces personnes dans les activités d'échange, d'animation, de remobilisation et de massification dans les 11 communes du département. En effet, le cadre compte participer activement au processus de parrainage et donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale à notre président lors des législatives de juillet, du 31 juillet euh, prochain. À moyen terme, nous mènerons des activités d'unification et de pacification pour la cohésion et l'entente dans le département. Une fois que nous aurons accompli cette dynamique de convergence de points de vue et écarter définitivement l'inertie de nos divergences, les responsables de notre alliance passeront à une étape supérieure qui consistera à stabiliser le parti, à le renforcer et à le préparer pour d'autres séances futures. Notre ambition est de fédérer toutes les forces vives de l'APR, du département de d'Orvisque. Le président Macky Sall l'aura légitimement mérité, vu toutes les réalisations qu'il a effectivement faites dans ce département. Il est bon d'interroger l'histoire pour mieux comprendre les effets du présent. En effet, en 2012, avec un fichier électoral de 172 000 électeurs, la coalition Maki 2012 a eu 66 000 voix au premier tour et Rufisque fut, dans tout le Sénégal, le seul chef-lieu de département où ces trois communes d'arrondissement ont été gagnées par la coalition Maki 2012. Au second tour, la coalition Maki 2012 a obtenu dans le département de Rufisque 160 063 voix, c'est-à-dire le deuxième meilleur score après Mbaké dans tout le Sénégal. Lors des législatives de 2012, la coalition présidentielle a obtenu 163 457 voix, l'un des trois meilleurs scores dans tout le Sénégal. Lors des élections locales de 2012, sur un fichier électoral de 196 000 électeurs, la coalition présidentielle a obtenu 30 000 voix. Aussi, au référendum de 2016, toujours avec le même fichier électoral, avec un taux de participation de 42%, constituant 82 360 votants, notre coalition a eu 30, 30 458 voix, avec le meilleur score dans toute la région de Dakar. En 2022, sur un fichier électoral de 249 000, 867 électeurs et 162 490 votants, Benno a obtenu 41 000 voix. Ces résultats laissent paraître une grande régression de notre coalition depuis 2014. Et pourtant, nous avions alerté en tant qu'authentique, en son temps, en créant le CRAP, le comité de relance et d'animation du parti. Mais nos orientations n'ont jamais été suivies. Ainsi, Déterminé plus que jamais en tant qu'authentique, notre cadre unitaire s'évertuera à remettre les pendules à l'heure en allant à l'assaut des responsables et militants pour une victoire écrasante de notre coalition au soir du 31 juillet 2022 dans tout le département de Nous demandons à rencontrer le secrétaire général de notre parti, la Yakar, pour une explication plus exhaustive des missions que nous nous sommes assignées afin d'atteindre notre objectif ce qui est de remporter triomphalement les législatives à venir. Vivement notre authenticité, les authentiques de la paix.